téléspectateurs téléspectateurs yi nekk yuy suivre télévision Touba TV Big la ñu am di ànd ak yéen fi nga xamante ne moom moo di Waxu euh, les quinze euh, communes yu nekk nga euh, ci département bu Nioro ba ñu fas yéene waxtaanee li nga xamante ne moom moo di programme bu am solo bi nga xamante ne monsieur Issa Ndiaye wax far fas yéene naka def moom nag mu nekk ab ingénieur euh, en finance ba tax na nag tey jii ñu fas yéene waxtaanee li nga xamante ne moom moo di mbëbëtam 15 axes yi nga xamante ne moom la bëgg ngir euh, fi nga xamante ne moo di wàqu nguuna euh, ñu mën ko am ba tax na nag ci élection locale yi moom mu nekk candidat bu yeewi askan wi ba tax na nag tey jii nii ñu ñëw fi ngir xool

nag tambalé ci neuf axes yi nga xamantene fassiyene nañ ko waxtaanee bu ci ñëk la modernisation de l'agriculture et de l'élevage. manam ñu ñi def ba jëma a li nga xamantene mom modi agriculture bi ak élevage bi benen point bi nak bokk na ci relook de. l'environnement Madame, nan lañuy gëna sey toli nga xamantene mom modi alam bi benen point bi bokk na ci désenclavement des villages Madame, ñu gëna a li nga xamni mom modi village yi ak programme bi accès à l'énergie gis ngeen buñu xolé ci ginnaw mi ngi lëndëm cruise parce que dafa manqué li nga xamantene mom modi électrification lenen aussi mu ngi bok ci walum euh, programme manam walum éducation xamna ni que c'est un pilier très important pour le changement ba taxna nak mom euh, monsieur Issa Ndiaye bëgg li nga xamantene mom modi éducation comme nous ko Nelson Mandela waxee woon l'arme la plus puissante pour changer le monde motax mu bolé ko ci walum euh, programme

culture ak artisanat buñ ko waxé mu nek ay piliers yo xamanteni mën na indi développement ci ab localité lolit it bokk na ci programme bi euh, li di euh, revalorisation des vallées fossiles lolit it bokk na ci li nga xamanteni mom modi moo euh, di programme bi amélioration de la santé communautaire centre communautaire nak buñ ko waxé mom modi poste de santé case de santé mon bëgg na li nga xamante mom modi euh, ñu amal ko ci biir localité yi ak ci village yi ndax li nga xamante mom modi moo di feebar faju mën yomb askan wi ba tax na nag looloo ñu indi tay ji fi nga mom modi waxu nguna euh, ñu and ak Issa Ndiaye mi nga xamante mom moy candidat bu yeewi askan wi ba tax na di meeting d'investiture am ak 8 euh, janvier nga rek inshallah le 23 janvier mom mom moy représentant représenté li nga xamante ne moom moo di la commune avec la coalition Yewwi Askan Wi kon nag dañuy àndandoo seetaan li nga xamante ne moom moo di meeting bi proposition yi lan la Issa Ndiaye indi ak askan bi nga xamante ne ñoom ñoo nekk fii ci Wack na ñu àndandoo teewlu. maa di nuyu di sant di gërëm eh, maanaam borom eh, nu juróom benn fukki dëkk ak juróom moo nekk fii ci commune Wack Ngouna eh, jeetaay bi. doomi gox bi yëpp ñu ngi ci fii ak ñi nga xam ne dëkkuñ fi sax boo seetee journaliste bi mu ngi Dakar foofu la dëkk ak ñeneen ak ñeneen lu leen fii indi yéen yëpp da ngeen di a jàppale nit ñi rek journaliste moom dafay jàppale nit rek pour nga mën a sa kàddu mën a dem ñu nga mën a génne adduna bi ñi ñi gis la kon ñu ngi ñaan yàlla rek yàlla nañu yàlla jàppale ci bés bés bi bés bi bés bi tund bi la bési réew mi la bési kër Sambaka la barke démb maa ngi seetaan benn euh, téléphone suma jabar moo ko yore woon ji mu ngi tudd ay dëkk yu bari gune yëpp tudd na leen ma ne ah alhamdulilah kon ñu ngi leen di sant maa ngi leen di ñaanal yàlla yàlla nañu yàlla jàppale. lii won na ne jeunes yi am na li ñu bëgg mooy changement kon ñun wax ji bëri na coow li bëri na waaye ñun li may njëkk a wax mooy.

Fi, lu fi lu fi man ta wax tamit te waxul la li nga xamantene mom moy mom moy li nga xamantene mo lay jëriñ elek dalay nax rek gis nga ñun suñu localité bi amul keneen ko xamantene man na fi ñew développer ñu ko ñun rek ñokoy développer suwat soit xalé yen yi di jang ku ci yalla may sens nga am possibilité noy jangé jangal ba jang mi bonn loolu kese parce que rew xam-xam rek moko yor bu loolu passé mooy li ma waxoon keroog rek dama koy répété waat encore gis nga nit bu ñu booloo di liggéey di ànd bokk benn vision kooku foog naa ne ñu am benn problème parce que man li may xeex beneen jeune bi tamit lu muy xeex Adama Adama Camara lu muy xeex ak Issa Ndiaye lu muy xeex ñoom ñaar ñu booloo doon benn kon ñun ñëpp loolu war nañu mën a jox firnde boo xamante ne ñun war nañ jël suñu suñu matuwaay ñu jóg pour suñu avenir. yar ginaar yar ay naat def lu nekk mën nañu ko def mais loolu yëpp li tax mënuñu ko def mooy programme yuy accompagner nit ñi loolu moo amul. te loolu nag président Macky Sall du fi wàcc Samba du wàcc Demba du wàcc ki jël engagement am laaj commune bi mooy jog sol dàllam seet fa programme yi nekk moo di ko jox ko ñoñam lii mooy li manqué ñaareel bi fii ci kër Sambaka. man wóor ma wala ma réserve ne lay liñ voté 2014 ba légui ci budget ak liñ ci réaliser ci xaliss fan la dugg ak fan lañ ko ci commune bi kenn mënta ñëw fi défar fi bilan bu amul. amul ak rek kon nit ñi seen ñu jox la seen la gi leen alal ji ñu jox la alal ji nga nañ la may la. yow yii ñu la jox yëpp war nga ko delloo saw askan en réalité lii moo manqué falu ñu buur buur new fi ay nawle lañ Issa suñ nawle la candidat bi fi génn suñ nawle la nañ ànd te yàlla tax kenn ku nekk lépp li nga yor ci sa poos ak foo mën a jëlee programme nga indi ko mu jëriñ saw askan looloo tax modernisation de l'agriculture bii jóg li tax ma di ci xabaabal tuuti mooy dafa nekk li nga xam ne mooy domaine bi nga xam ne 70 pour cent de la population active fii ci Sénégal ñiy yëngatu ci domaine bii la ñuy yëngatu te contribution manam limi dougal ci la recherche manam comme comme réew mi lu néew la motax sénégalais yi ndol motax ngeen gi chaque jour ñu ñu dimbalee ay bourse sociale te duñu téé dañuy noy rek waye duñu japp waxuma len dimbal li baaxul ndax tuba bi sax amna luñu tuddé ñu impôt négatif ko amul dara ñu sét lu la jox ba nga xam fo jëm waaye lii changé situation yi chaque année day yok te teroot mu ngi gën a tar donc nañ moderniser suñu agriculture ñu mëna a dem vallée fossile bi ngeen gis moy jaar ba Koutango saabuya ak liko wër nit ñi fi lañ daan bay soble amna luko dal té liko dal pourtant luñu mëna soppi la moy dafa am ben ñax bo xamné ni changement climatique motax mu ñëw implanté wu ñu tuddé ko Tifa. Tifa bi ngeen gis mën nañu ko transformer en engrais organique engrais organique pour remplacer ko suñu engrais bu seer bi lu mëna a nekk la waaye doxuñ ci lolu ñaarel bi ñax gi ngeen gis muy Tifa bi mën nañ ko transformer en biosarbon parce que mën naa nekk kërign kërign gu mucc ayib ñaara ngi nonu ci ñax gi ngeen gis. troisième bi moy bo YouTube construction yu yi nga xamné mo utiliser parce que dafa am rôle bu am solo bu muy actuellement ci écosystème bi. ñuy commune ñeu Sambaka pour def meeting d'ouverture sur le candidat Issa Ndiaye. ñoo ngi lu bi parce que joggé Dakar. motax ñi xawa gude? ñi ngi mastaw choono suñu yaay yi tok fi dañuy addu rek commencé ci wa kër Samba Ka di leen di ñaax di leen wax naan isa njaay jël na courage bi nga xamantene suba ay rakam war nañ ko top parce que c'est la première fois à kër Samba Ka juuma donc mu don lo xamantene wa keur Samba Ka seen combat moy naka lañuy def ba isa ndjay gagné fi ak naka lañuy def ba isa ndjay yenen gagné yenen 64 village loolu moy sen responsabilité. isa ndjay nak mun mënu presente ko présenter parce que yéen a ma ma xam isa ndjay ko jur yéen ko yar yéen ko mu respecter lolu fonk ko. Tay mu ñew mu nek Kër Samba Ka si goute ba mu nekk ak Wakanguna si guuta ba mu nekk dama ko ci génnee lolu dañ koy rafetlu lolu c'est un engagement fort de la part du maire Issa Ndiaye. légui nak ñun ci coalition bu muy coalition Askan ma leen di wax naan sen coalition jeune coalition bu nga xamantanan ay ndaw ñoko ko parce que. ku ma gis xam ne ne je suis jeune Issa Ndiaye également te dama naan à chaque fois ndaw bu jóge di politique dañ koy diaboliser dañuy yàq deram di wax day indi fitna dafa yàq dëkk bi xam ngeen ku ngeen jur nu mel ni Issa Ndiaye Issa Ndiaye melu noonu Issa Ndiaye dafa jàngi yàlla am lum mu ko dënk bu ko mu de munda ak Mune mu ndaw di damay confronté commune vraiment c'est un acte à félicité. donc lolo moi lu ndaw sur la personne Issa Ndiaye. ah monsieur Camara di nuyu Touré tout pasteur wak ak toute la coalition Yewwi Askan Wi de Wack Ngouna ndax ay nit ñu am valeur lañ nit ñu baax lañ ndax yàlla dogal na ñun ñu ngi dëkk Nioro mais defe naa depuis 2017 ba léegi ñun ak mbay ñu ngi liggéey liggéey bu am solo ci PASTEF comme ni ko monsieur le modérateur waxee mu doon loo xamante ni parti boo xamante nii pour nga yàgg ci sax si koo gis mu yàgg ci sax si rek xamal ne kooku ku am dignité la kooku ku am honneur la kooku ku jara ku mat a dénk la ndax Issa mii nii toog fii nii tey ah monsieur le modérateur dafa am lu spécial lu am fii tey Kër Samba Ka lu raar nag parce que ñun dañuy dem di génn di dem ci ay rencontre mais li ma fi gis tey lu raar la ndax li ma fi gis tey dégg ko fi tey ci programme

di sensibiliser population bi li nga xam ne bëgg nañ ko def ci commune de Wack maa ngi leen di jiital jaajëf leen wax yéen patriote yi yéen waa Yewwi Askan Wi la jërë ngeen jëf nit nag booy ànd ak ay nit da nga xam ne ñoom la da nga leen wax pour man ñun la dama nekk ci kanam rek mais liggéey bi yëpp toog modérateur wax na ko nee walau ñun Pastef wala ñun yeewi askan bi dafa am principe ñu tënk principe dox man awma ci kàddu lu may buum wala lu may buum lépp dañ koy waxtaane ñu ànd ak loo lalu ne consensus ñu mun a jël décision loolu mooy doxal réew réew buur yoru waxtaan lu ñuy wax le brainstorm mooy réunion liggéey parce que yàlla ñun ñëpp la may xel xel buñ koy séddale dafa may ñëpp amul kenn koo xam te amul fi xel Descartes da wax le bon sens est la source du monde la mieux partagée loolu mu ñem léegi nag lu tax kii mun a def lële kële mun ko def c'est une phase intellectuelle mooy nag damay dama yaafus mooy nag dama rangal xel parce que xel ay nen yu nelaw la boo ko sonalee rek mu toj mu indi la beneen solution kon lii sama gars yi wax complexe eh, amul fi ñun de Samba Ka la juddoo dem Ndakaaru xam naa ne sama collaborateur yi ñoo ngi ne pour loolu damay ñëw rek introduction bi pour ngeen xam kan mooy seen doom bi ma génnee majoré ba pare dama dem def concours bu ñuy wax concours passerelle mooy ne que ñi gën a aay ci Sénégal ñi gën a ci Maroc moom la ñuy yóbbu France man concours boobu noonu ma def ko dóor waa Sénégal encore nekkaat ma soog foofu noonu. pour wax leen

waa suñu école nga xam ne ISM ñu ne Issa kaa yu jox la liggéey man dañ ma jëli ji ne ma liggéeyal ci loolu nag muy am loo xamante ne yar nañ éducation am nañ ko te gëm nañ suñu bopp mooy ne ko du ñu tàllal loxo te du ñu lekk alalu jàmm moo tax it en matière de compétence ñu gaaw a yegg fu ñu yegg parce que nit boo gëmee sa bopp nga xam ne doomu jàmm doo ko laal nit ñi dañ lay wóolu moo tax aujourd'hui je suis le directeur financier du privé du Sénégal ci loolu nag euh, xam nga dafa am loo xamante ne doomu aadama daf koo réere mais bu ko leeroon rek dina xam ne alal kenn du ko laal parce que boo ko lekkee loo xamante ne lewul la loo xam te ko deret lay soppeeku da ngay ay doom doom yooyu noonu dafa am ay conséquences di ngay gis loo xamante ne loolu la dimension humaine dafa war a jéggi loo xamante ni ñëpp ko bokk waruma ko lekk parce que sama doom yi dina am ay conséquences parce que feebar la boo xamante ne demee kenn leen mën a faj kon vision bi ñu war a foofu la doomu aadama buy xelaat na ñàkk lekk loo xamante ne law na ko mais lu ñëpp bokk boo ko lekkee di tôt ou tard di ko fay donc lu mata lu mata lu mata euh, sóoraale

bugguma sama collaborateur bi sama noonu laa mel même ñi may liggéeyal damay dem ba ci yàgg ñëw laaj leen ndax lekk leen wala añ leen donc man ku may ànd ak nit ñu ma xam moo nit di sonn donc noonu lañ ma noonu lañ ma tabaxee donc euh, li li muy def fii yëpp chaque jour moom laay xalaat donc naa la Adama merci merci beaucoup bëggoon naa ngeen tàcc na ko xam sama collaborateur yi wax nañ ko juf wax na ko euh, bëri na fi parce que je sais que ne gars yi xamuñu la am nga sa xaalisam ah, te transitaire xam nañ xaalis bu bëri la la yor waaw yàlla may na léegi nag transitaire bi mu doon tey mënoon na ñàkk ne day ànd ak Issa mënoon ci yeneen liste yi comme ni mu ko waxee nangu dëkk bi mënoon def yooyu noonu mais li moy lima ma yalla def ñu and ko li dajé pour liggéeyal gox moy sokali waxu ñu donc and bi and nawlé la ni ko sama collaborateur bi waxé douf and nawlé la donc and nawlé nak bu ngeen koy def day indi and rek pour askan bi loolu moo ñu bolé fi ànd askan bi moy nek sama yaay yi nga xamné vraiment xam nañ lan mooy problème yi suñu doom yi xam nañ ne avenir la lañu la ñuy la surtout ñoom avenir suñu rakk yi nga xam ne ñoom fii nii am nañ baccalauréat amuñu liggéey bu ñëwee aussi am nañ war nañu am avenir boo xamante ne vraiment bu ñëwee du ñu sonn te dinañ mën a yor seen parents loolu yëpp ñoo ngi ko tëfee ci programme loolu laa amoon vraiment remercier notre euh, Massamba. moom moo nek conseil départemental bi lay xëccu lay xëccoon di ko ñaana vraiment mu am ci victoire parce que ñun aussi ñu ñoo bokk coalition ñoo bokk Pastef nit nag boo amee sa kër euh, boo gañee sa kër ba pare nga gañee chef bi dina gën a yombal dinañu gën a yombal liggéey bi bu nekkee vraiment ñun gañee nañu bi moom mu gañee département bi li nga xam ne li ñu bëgg day nekk benn donc ñoo ngi koy ñaanal ñëpp jàppale ko muy bés baa ñu wote ñu wote ko ñu gagné département bi gagné commune bi euh, ci loolu noonu dañu bëgg a continuer ci ñëw tuuti ci ci euh, point yi nga xam ne euh, souligné souligné nañ ko fii nii xam nga Diouf dafa am loo xamante ne doomu aadama bu ko xamul mënu ko laaj. mooy ne que dañoo war a am des sociétés civiles yoo xam ne dañuy yee askan bi parce que askan bi bu xamee lu leen war ak lan lañ leen war a jox rek bu boobaa dinañ ko mën a laaj parce que tey nee ngeen ki fi nekk def na fi sept ans amul bilan bu mu war a def ci kër Samba Ka wala bilan bu mu war a def ci waa ci xam nga tey man mënuma jël sama surga yóbbu ko au niveau de ba pare mu war ma liggéeyal mu ñëw liggéeyaluma ñëw di sàcc sama gerte gi di ko jox loolu mooy ñi nga xam ne politique bi fi nekk di am depuis 1960 ba léegi. tey euh, wax nañ ko léegi dafa am loo xamante ne il faut ngeen xam ko mooy li ñuy wax TVA taxe sur la valeur ajoutée lañ koy tuddee lu lu tubaab bi moo koy wax que ne lépp loo xamante ne yaa ngi koy jënd yaa ngi da nga fay 18 francs mooy 100 francs boo jël da nga jël 18 yi fay ko état état mënut a nekk fépp ci redevable légal moo am ak redevable réel légalement bi nga xam ne moo la jaay courant bu la jaay ndox bu la jaay ceeb moom lay wax correctel ma ko parce que mënuma dem Kër Samba te bëri nañ parce que commune bi rek boo xoolee cinquante mille habitants lañ cinquante mille habitants nit mënu benn ci foofu noonu mu ne ko loo jënd muy muy euh, jaaro bi nga jënd muy fulaar bi muy chaise bi muy ndox bi muy courant bi loolu la ñuy wax ne képp ku ci jënd rek mu nekk ko jëlal ma 18 francs nga nga nga teg nga nga ñëw nga versé ma ku ci compte trésor léegi nag 18 francs yooyu noonu ngeen nga xam ne yéen a koy fay état ji ko moom lañ leen war a delloo pour nga xam ne fonds de dotation lañ koy def au niveau de des mairies pour ñu mun leen defaral ay yoon mun leen defaral ay hôpitaux leen defaral mun leen defaral mun leen defaral donc loolu il faut ngeen xam xamante ne yéen yéen a koy ko ci ay yoon wala mu defal fay ay soldats wala fay ay militaires pour assurer sécurité bi ba nga xam ne yeneen réew yi duñu daanu suñu kaw donc ñun ñooy fay état état moom.

wala mu ne xaalis la boo xamante ne dañ koo jële ci euh, ñoom dañ ko jëlee feneen mais xaalisu askan bi lañ ñuy cotiser jox leen woor ñu koo delloo nag delloo boobu nag ci hôpitaux yi laa a wax ci case de santé yi wala ci yoon yi wala ci wala wala wala nga xam ne ba xam ne lépp lu ñu bëgg du ñu am benn jafe-jafe donc ci loolu noonu laa bëggoon gis wax euh, il faut ñu la population il faut que société civile bi aussi am benn taxawaay bu ñuy am ci gox goxaane pour expliquer la population que ñi nga xam ne ñoo ngi fi 1960 ba léegi di ñëw di ñu jox xaalis suñu xaalis tey benn misaal laa leen di jox nga dem nga liggéey ba weer nga dem ci sa gàpp nga dugal sa mu jox la xaalis ba pare nga koy donc loolu mooy yëfu dof mooy ne que yow mu xel mi xaalis bi politicien bu ñëwee bu jox dem leen seen xaalis la mais parce que xaalisu gerte dañ koo sàcc amoo droit jël ci keesu état loolu amul benn réew boo xamante ne sañ na tey dafa am loo xamante ne niveau de corruption li wax guerre moo yàq réew mi guerre tant que lutté wuñu ko xeexuñu ci dëkk bii nii mënuñu fexe ba développé ñun nag. waaye yéen askan bi yàlla may nañu ger boobu noonu mooy li ñuy njëkk xeex ci même réew moom moo moo waral ko Ousmane Sonko coow lu bëri ci moom ak ñi nga xam ne wóor nañu ger boobu nag buñ ko xeexee ba pare te xeex góor boobu mooy mooy il faut des institutions fortes institutions fortes lan moo ñu koy may mooy na l'exécutif le président de la république amul droit d'une assemblée générale naan ko defal ma lii wala dem ci justice ne ko defal ma lii ak directeur général, yi nga xam ne nommé nañ leen ba pare ñu nekk fii di politique loolu dootul am appel à la candidature lay nekk l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. loolu mooy doxal réew Issa mun na bay nañ ko bàyyi mu bay. loolu mooy li nga xam ne moom la ñu bëgg mais des postes politiques boo xam ne Samba xamul dara ci bay nga ñëw teg ko na la bayal le résultat sera négatif loolu moo fi nekk depuis 1960 te loolu te loolu la ñuy loolu nag pour ñu xeex ko nag suñu yaay ak suñu papa yi ñoo ci mën a vraiment ñu mën a génn ci jafe-jafe yi nag génn ci jafewu ñun bind nañ benn programme boo xamante ne mucc ayib li nga xam ne mooy premier point bi sama collaborateur yi wax nañ ko parce que ñun ñoo ko bindandoo fii la dugg duggoo xam nañ suñu yaay lu ñuy souffrir xam nañ suñu papa lu ñuy souffrir xam nañ suñu rakk yi lu ñuy souffrir kenn mënuñu wax li nekk fii ci kër xam nañ ko bu ñuy lekk ñeele ñun ak ñoom ñoo koy séddu boo duggee ba donc xam nañ lan moo nekk fii nii lan moo nekk fii nag moo nekk ci dëkk yëpp 65 villages ci lañ ne pour pour pour ñu soqali gox bi comme suñu source de revenu mooy li ñuy jox xaalis benn affaire mooy mbay ak càmm càmm nag parce que adduna bi loo gis ñu koy lekk dañ koy bay wala ñu yar ko muy yar kii euh, wax na ko ci yar jën yar élevage. ak ak ju rek moo yor aduna bi amul leneen loo xamante nag mun ngeen ma ko wax te ñuy lekk lu ñuy lekk te jógewu ci ñaar yooyu noonu amul amul donc yooyu noonu boo buggee xeex mauvaise alimentation wala nga xeex xiif ci aduna bi wala ci localité bi il faut nga nga nga fexe soqali activité yooyu noonu tey Casamance boo fa demee nit ñi sax duñu dem tal añ wala tal ndékki parce que bu ñu génnee rek lekk ci environnement bi donc loolu moom la ñu war a def ci commune Wack ba nga xam ne suñu doom yi di ñëw waruñu souffrir wala ñu lu ñu am jafe-jafe waruñu am jafe-jafe boobu noonu. war nañu sama doom bi nga xam ne toog na nii wala sama rakk bi nga toog nii fii ak ñetti at bu génnee décembre ka rek day lekk fruit te bu boobaa dina gën a améliorer santé

lii bu mooy santé bi dinañ ko accompagner am na ne lii boo saxalee garab ñetti at lay def pour nga xam ne mun nañ ci mun nga ci am au moins euh, retour bi mooy retour mooy nga am loo xam te ne mun ci lekk ci loolu dañoo ne euh, manque de prise en charge bi ñu constaté ci commune mooy waral taux de bi parce que nit boo gisee mu dee rek wala mu am jafe-jafe dafay dem hôpital yu ne ko noo jënd ordonnance ñu doog la fay wala euh, fayal jigéen ñu doog lay jël loolu ci Sénégal rek laa ci réew mu normal loolu warta am boo ñëwee quelque soit al dañ la war a jël faj la ba pare parce que doomu aadama yàlla moo ko wax Dieu a béni le peuple d'Adam mooy nag yàlla dafa dafa dafa gërëm bëgg doomu aadama donc yàlla ci mu njëkk a bëgg doomu aadama donc yàlla mu bëgg bëgg doomu aadama pare yow nga ne tu es le serviteur ba pare munoo nit ki ñëw feebar di souffrir munoo ko jël euh pare laaj ko xaar donc loolu lañ ne il faut ñu xeex ko loolu nag ci lañ ne il faut ñu def des mutuelles de communal euh, mutuelles de santé communale. ñu déterminer coût yi xam nañ ne du domaine de compétence mairie mais dañuy am des investisseurs des bailleurs de fonds pour nga xam ne dinañ mën a ñëw installer ci dans la commune.

voilà projet bi nga la digitalisation des civils point donc la digitalisation des actes civils projet voilà téléspectateurs de la télévision Touba TV investiture bu candidat monsieur Issa Ndiaye mi nga xamante ne moom mooy candidat bu yeewi askan wi fii ci commune bu Waxi Ngouna ba tax na nag euh, tey jii gis ngeen décliné na li nga xamante ne moom moo di programme bi mu indil euh, société bi bi mu indil askan bu Waxi Ngouna euh, ba tax na nag meeting d' investiture bi ñu ngi ko doon amalee fi nga xamante ne moom moo di Kër Massamba nekk fi nga xamante ne moom moo di fiefam mbokk yi lii nag moo nekkoon seen reportage bi nga xamante ne defoon nañ ko fii ci Waxi Ngouna andi coon ak ki nga xamantene de moom moo l'une ci caméra bi Abdoulaye Famanta était à la présentation merci encore une fois pour votre fidélité sur la télévision Touba TV